ak réew yi ko wër jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke si lim mu nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix suturaak ci ranga ak poche def dara tabaarakallaahu sëñ Mbàkke ni mu koy wax ci albidaaya fajaru ajjuma noo ngi ànd ak yéen ci arisaala arisaala di ay jataay yoo xam ne mu ngi jëm ci nu jàng sunu diine walla ñu jàng pratique bi walla nga tudde ko mbirum fiq ndax borom bi daa wax ne wa maa kaana al muminuuna liyamfiru kaafa waaw bu ñépp nekk ci lenn bu leen ànd yéen ñépp nekk ci lenn ni ñiy nekk ca lee ñiy nekk ca lee bu ko defee ñii jariñoo la ñee xami woon ñii jariñoo la ñee jëfi woon sunu bind bi weesu ndax arisaala dañ koy déglu ñaar ba ñetti yoon ndax bindu fiq la suñ bind weesu dañoo nekkoon ci yi nga xam ne aji jàpp ji da koy soxla professeur xam ko te mu yiw la ci jiitu mooy kuy jàpp di wax dagan na kuy jàpp di wax dagan na ñaar ba cër boo toll di ñaan ne nañ loolu jëru ko ñetteel ba kuy sikki sàkk ci ndax loxo bi raxas naa ko ñaar yoon walla ñetti yoon neel ñaar yoon ndax li gën a tuuti ngay jàpp bu dara doxee diggante cër bi ngay raxas ak ndox mi dindil loola dindil loola juróomeel bi jigéen joo xam ne eh, ay réglam dafa normalut nga xam ne léeg-léeg mu ñëw nekk fukk fan ak juróom rawatina ñi mas a def ñi mas a def pexem bañ a am doom wala góor goo xam ne gii li muy tuur ndox dafa bari walla nit kuy ngelawal lu bari ñooñu dañu ne waxtu wu jot rek nañ ko jàppal mhm. mu ngoog juróom-benneel bi ci yi nga xam ne aji jàpp bëgg na koo xam mooy mënees naa dimbandiku ci booy jàpp maanaam professeur ji bi yor satala gi di xellil Oustaz Alioune Mbaye muy jàpp wala di ko sottil bi ci mujj jàpp ba noppi jël sarbet fomp dagat na ñu ñëw nag ci bind bu bees bi tey insha allah professeur mooy almashu alal xuffayni almashu alal xuffayni al mooy ñaari dàll di jàpp ba toll ci sa ñaari dàll au lieu nga summi leen summi kawas ya nga masaa ca kaw dàll ya loolu bind boobu lañuy ñuy jàng tey waaw nga masaa ca kaw dàll ya dàll li tax ñu ne xuff nag dafa nekkul carax naal maanaam ay carax kenn du ko sol di jàpp dem masaa ca kaw carax ya déedéet day nekk dàll chaussette ferme wala dàll bot yooyu nga xam ne am fermeture bi ci koñ bi ba am ko xeeti dàll yooyu la ñuy wax xeeti dàll yooyu la ñuy wax sooy jàpp ba agsi ca nga masaa ca kaw bind boobu ci la nu jëm si dama koy tàmbalee ci tomb bu njëkk bi waaw docteur Sakaria Cissé waaw moom moo jàngiwoon yi may wax ni <laughs> waaw wala ci ñi jàngiwoon yi may wax ni la bokk dama koy jàmb tàmbalee ci fan la tegtalu loolu jóge dalilu mashruiyatihi dafa am lu am solo ci diine lu ñuy wax dalil lu ñuy wax dalil dalil mooy li may wax nii téere sàngam a ko wax walla aaya sàngam mbaa addi sàngam loolu lañ tuddee dalil waaw am na solo lool qul haatu burhanakum bu la ko saas ibrahima xalil loo di firil qul haatu burhanakum rekk sa xol bi sedd tabarkallu waaye kon bu ñu ne masaa ci ñaari dàll wares mënees na koo def dañ naan la luy sa dalil waaw luy sa dalil lu am solo la waaw penc mi di wax lan mooy sa dalil nga daal di laye ko wax na dëgg léegi suñu nee masaa ci ñaari dàll dagan na professeur ne luy sa dalil ñu ne ko almasu alal xuffayni sax na ci sunna sax na ci sunna te it lu wér la sax googu lu wér la ña ngi ko jële ca ka yàlla yónni woon sallallahu alayhi te lu mu def noonu la gaa yee ko waroon di def na muy def al imaam an-Nawawi jàmbaar ci jàmbaar yi la bokk moo taalif riyaadu saalihiin nee na dëppoo nañ ci ne almasxu alal xuffayni jaadu na daggan na mën naa nekk fi safar bu fekkee dangaa tukki bi kaay seen jóge Italie eh, dem France wala sax ci biir itali mu jóge Brescia dem Pontedera <laughs> waaw te ñoom Pape Demba loolu mooy safara bu fekkee da tukki jàpp jot xam nga loolu yonent bi yàllaa ko yónni yonent bi yàllaa ko yónni moo tax waykat bi ne ma walaaye ñu ne ko ah mu ne salli wa daa'iman abadan ala habibika xayril xalqi kullihim ñëpp xam xam nga bu nee tukki dangay wàcc ci benn aéroport aéroport am na ci yoo xam ne amuñu jàkka waxuma laa jàppukaay amuñu jàppukaay waxuma laa jàkka waaye fii ne boo doon dugg ci seen barab yooyu toilette yi boo raxasoo duñ la dara dara de boo galax duñ lox dara nga sarax ndiku fiiru duñ lox dara buñ la fekk ngay sëlmu duñ la dara buñ la fekk ngay masaa sa bopp duñ la dara waaye boo summee saw dàll teg sa tànk ca kaw këf ka buñ la fa fekkee yóbbu la police waaw alayhi salaatu salaam indil ñu almasu alal xufayni waaw almasu al xufayni sëriñ ba nee na mooy fiqu nawazil <laughs> yàlla ko yàlla yokk wér sëriñ Mansour Fall euh, kon soo jàppoon ba agsi ca tànk ya nga tooyal sa loxo rëdd ko ca kaw dàll wa tooyal bee rëdd ko ca kaw dàll wa daal di dem kenn du la fa fekk di la yóbbu police la ñuy wax dara ndekete sunu diine ji al sharia waajaloon na lépp salla alayka llahu ya alamal waaw ajaloon na lépp fi ne lii bi nga fekk nga nga ko doon def kenn du dara waaye yëkkati sa tànk bi teg ca kaw lava booba di raxas bi la fa fekkee yóbbu la police sallallahu alayhi wa sallam kon ci tukki almasu alal xuffayni wér na nee na wal xadar ñàkk a tukki ñàkk a tukki demoo fenn yaa ngi Dakar gii demoo fenn yaa ngi si biir kër ba tey wér na mu ne moo xam soxla nga ko moo xam soxla woo ko ñu ne xatta jigéen ji nga xam ne jigéen multazima la luy jigéen multasima mooy jigéen joo xam ne musóoru wut tàggalu wut tegul kaala ca bopp ba daf ko def nii ñoom Amina Jaw di def teg ko ci bopp bi ba pinge ko bu fekkee ba muy génn këram dafa jàpp ba noppi pinge ko noonu mu xëy liggéeyi tisbaar jot muy jàpp ñàkk dindi kaala googa ca bopp ba teewul njàpp la wér waaw wax ji may wax ba demee ci fiqhu sunna bu sayid saabix ca jukki bu njëkk ba waaw ca jukki bu njëkk ba ca xatum juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar la wax wax ja ba daa ne xatta lil al mulazima wa zaman allasi laa yamshi aw kama xaala ca maqaalam boobu mbokk yi maa ngi ci jataay bu tudd arisala noo ngi jàng tey kuy jàpp ba ñaari dàllam au lieu mu simmi ko mu masaa ca kaw ñu ne loolu dagan na yonente bi alei salaam def na ko saxaaba ya fekke ko ñu ne bu bu dee tukki dagan na boo tukki wutut dagan na soo ko soxlaa dagan na soo ko soxla wutit dagan na dagan na ci jigéen jigéen ne këram jàpp ba noppi door a takk euh, muuraayam door a takk muuraayam ba tapp ko waaw buy jàpp du du dindi bu dee tagalu gi nag nga xam ne cat kawar yaa ngi ci biti nopp yaa ngi ci biti kooku kenn mayu ko ko waaw tuuti kon nga ne kon kenn mayu ko nogay <laughs> waaw boo demee ci benn école nag ci école yi alxawaarij wa chia ñoom bañ nañu loolu waaye sayid xut eh, sayid saabix ba mu ca tollee moom it def ne wala yu'taddu bi xilaafihim wuute googu ñu wuuteeg ñii waaw du layal du layal tere ga waaw googu ñu wuuteeg ñii du tere ga ndax bu doon démocratie la ak ak ak ak ak wate boo moytuwul ñi ne dagan na ñooy ñooy wat ñu ne dëgganut moo tax wala yu'taddu bi xilaafihim alxaafis ibnu xajar ca téere ba tudd alfatah alfatahul baari téere bu baax la te mag eh, tabaarakallaahu eh, sunu mbokkum daara eh, Cheikh Jëng nekkoon ca Makkatal Mukarrama ca Madina mënu ko baaxe woon yal na ko yàlla sàmm waaw ndax damay wax ne dégg ustaas bu wax am masala nga dugg ci youtube bi pour dajje masala ma jëru ko déedéet wutal ko téere ba waaw wutal ko téere ba waaw léegi comme yàlla baaxe na ko ma nga ci micro ba te yow nekkoo ca jàppale ko moo gën découragé nit ñi bañ bàyyi ko Oustaz Tahirou Fall nee na li yasuddu an sabilillahi dara gun ko mel ci noonu waaw waaye wax na masala ma juum na ca nga jël youtube ba dal ca kawam waaw boo dal ca kawam loo bëgg mu bàyyi lem ay bagaasam toog ña doon jëriñoo ko niw du jëriñu déedéet ñaar ngay def jëndal ko téere bu mel ni ba wax ca la walla nga woo ngeen waxtaan mbaa nga dem këram ni ko sa Ahmed Dame Ndiaye di defee waaw sa Ahmed Dame Ndiaye ku juum ci masala même boo nekkoon ci maxam mbaakool allahu akbar jaral na ko sol aw dàllam waaw dégg ngeen fi jàkka yam demoon ak jumaa yi doon leen juboo lijee <laughs> yàlla na ko yàlla yooyu ko waaw noonu la dégg nga masala kii daa daanu ci masala mi te nag wax dëgg yàlla wax fukki weer ak ñaar masala yépp na cocc ah waxuma laa nag ñaari at ñett waxuma laa lu ko ëpp lu ko ëpp rahimallahu umraan samhan isa baa yonent bi nee na dënn bu yaatu dafa baax ay masala xëj ci waaye daal <laughs> eh, boo demee ci al xaafis ibnu xajar ci al fath mu ne téere boobu sunu mbokk mee ca jurbel moo na ko doon baaxe nee na wa qad sarraha jamcun min al xufaas bi ann al masa ala al xuffayni alxaafis ibnu xajar al asqalaani ca alfatx nee na bu fekkee noonu la nee na am na mbooloo yu baree bari ci ñi mokkal addis nee nañu masaa ci say dàll booy jàpp ba toll ca mutawaatir la mutawaatir maanaam dégg nañ ko ba tàyyi déggati ko ba tàyyi déggati ko ba tàyyi atawaatur xeetu technique la ci xam addis bu wér ak bu wérul waaw xeetu technique la yàllaa ko baaxee xeetu muhammad sallallahu alayhi wii ba ni mën a sàmme alquran ñu mën ko sàmmi sunna si bi sallallahu alayhi ko loolu ci xeeti technique yi la bokk waaw technique boobu nag ci la ñoom buxaar yi doon jaar ba lañ indi lépp wér ci la muslim jaar ba lam indi lépp wér ba yoon wa xawee am lu mu am nag ñoom na saa yi ñëw ak ibn maaja ak tirmisi ñoom seen ñooñu waaye ñaar ñee ñoom ca lañ jaar tabarkal al buxaari wu muslim yàlla na leen yàlla fayal xeet wi nee na wa jamu wa jamaa baaduhum ruwaatuhu fa jaawasu thamanin nee na ñiy dajale addis dajale nañ ñi nekk la addisu masaa ci sa ñaari dàll dagan na nee nañ bañ leen dajalee seen wax ja ñoom ñëpp mat nañ juróom-ñett fukki nit professeur benn xibaar boo xam ne juróom-ñett fukki nit wax nañ ko hmm? waaw loolu day wér maanaam buñ toogoon am ku ñëw ne euh, càlle courant ba àgg na fa keneen ñëw ne càlle courant ba àgg na fa <laughs> càlle courant ba àgg na fa ba ñu juróom-ñett fukki nit li muy tekki mooy effectivement àgg na fa effectivement àgg na fa loolu technique la ci wàllu dajale addis waaw moo tax du lu du du ko am saa def sànni mot mukk sëriñ Cheikh nag nee na xëy na li nga wax wérut moo gën a yomb wéral ko mbokk yi wa aqwal ahadisi xujja fil mashi ne nañ lay wi gën a dëgër ci lay yi nga xam ne moom la ñuy layale jàpp ba dal ci say tànk ak dàll ya ca nekk ak su sedda nga bañ koo summi xanaa masaa ca kaw nee nañu mooy li nga xam ne moom la ahmad nekk lii ak cheyqaani ak cheyqaani buxaari yoog muslim abu daawud nettali ko at-tirmisi nettali ko ñu jële ko ci humaam a naqai radiallahu anhum nee na baala jarir ibnu abdullah thumma tawaddaa wa masa ala xufayhi ne nañu jarir ibnu abdullah ca saxaaba yi la bokkoon waaw ca saxaaba yi la bokkoon mu tuur ndox ba noppi di jàpp ba mu agsee ca dàll ya summi wuleen xanaa masaa ko ñu ne ko lii nag mu layal ko mu layal ko naam raaytu rasulallah gis naa yonent bi muy jàpp ba mu agsee ca dàll ya mu masaaleen loolu xam nga lay wenn gënu koo rëy jarir nee na lim def moo gis yonent bi def ko day jàpp ba àgg ca dàll ya wa masa ala xuffayhi mu masaa leen summiwu leen ñu ne ko lu tax nga def lii mu ne raaytu rasulallahi tawaddaa wa masaa ala waaw mu ne gis naa yonent ba def ko sallallahu alayhi wa waaw ngeen baal ñu yéen ñi nga xam ne yéen a ngi diim tiim yaxu addis bi ñaari baat yi ci nekk te mooy yi may moytu moo tax ma moytu leen waaw ñi xam addis bi daa daañ xam ne wax ñoom Oustaz Cheikh Tandian waaw ndax loolu la ñuy wax ci teel a jàng alis te jàngagoo fiq boo agsee ci yenn baat yi boo ko firee rek adduna tukki waaw am na baat yooyu de su ko firi waaw mukk waaye daal boo waxee ne jàpp na rek danga xam ne jàpp na waaw mu nga junj doy na ko am xel Cheikh Al Hadj Malick li fekk junj a ngi leer rek dee leen junj <laughs> waaw am na solo lool tabarakallahu qaala ibrahim fa kaana yujibuhum hada al hadis nee na hadis bii neex na leen lool hadis bii neex na leen lool ñu ne ha mu ne li anna islaama jarir kaana baad nuzulil maida ñu ne jarir suratul maida may jàngale njàpp wàcc na ba noppi jarir dóor dugg ci lislaam ñu ne ah mu ne waaw anna jarir aslama fi sana al ashira baada nuzuli ayatil wudu mu ne jarir ci atum fukkil ma ginnaaw bi aaya ji jàngale njàpp wàccee ba noppi cala la jarir dugg te aaya ja tufiidu wujuba xus eh, xusli eh, xusli rijlayni wala xasli rijlayni aaya ja day day day wane ne ñaari tànk dañ koy raxas léegi jariir jàpp ba agsi ca raxasu ko bañ ko laajee lu tax raxasoo ko mu ne lii ma def nii maa ngi ko gis ci alayhi salaatu wassalaam mu ne kon fa yakunu xadiisuhu mabniyan waaw a bil aaya loolu loolu moo leen yéemoon ci hadiisu jarir bi ibnu abdullah mu ngoog kon ki amul ki amul xof maanaam dàll dàll chaussette ferme walla bot xanaa daa am ay carax kooko moom kenn waxu na waxu ko na masaa euh, kon na ragg ki am dàll xof walla mu am chaussette ferme kooka lañ may mu masaa ca kaw hadis bi ma doon wax ni mbokk yi mooy dalilu yoonal gi ko sharia al islaamiya yoonal ab saxaaba moo ko gis yonent ba def ko mu def ko saxaabay laaj ko mu indi fi mu ko teg la ca tege mooy wax ji wax ci massa juróom-ñett fukki nit wax nañ ca mu ñëw ci beneen tomb professeur muy ñaaral bi mu ne masruul massi alal jawra bay ni loolu nag kii nag moom du dàll mais kawas la masruiyatul massi alal jawra kii moom du ay dàll moom kawas la moom it yajuusul masu alal jawra bay ni waaw masaa ci kaw ci kaw ay kawas waaw ay kawas nee nañu moom tam wér na nettali nañ loolu bari ñu bari mina saxaaba ca saxaaba ya abu daawud nee na wa masaha alal jawra bayni wala wa mas wa masu alin al wa masa alal jawar bay ali am na abi taalib jàpp na ba agsi ci ay kawas mu masaa ko ibnu mas'ud def na ko albara ibnu azib def na ko anas ibnu malik def na ko abu umama def na ko sahl ibnu saad def na ko amr ibnu xurayth def na ko ñu ñépp def nañ ko nekk na ñu ne Omar ibnu Xataab def na ko nee nañu it Ibnu Abbas def na ko masaa ci ñaari kawas mbokk yi teg seen baaram foofu ñu ñaan suñu borom may nu nu déglu ko benn yoon ñaari yoon ñetti yoon bu ñeentee ñu indi bind bu bees incha allah tey suñu bind moo doonoon masaa ci ay dàll booy jàpp baax si ca fekk bi nga koy dugal dangaa jàpp ba noppi door koo dugal wala jigéen ju tapp boppam ba faf dara du feeñ wala ku sot ay suset ci lañ tàmm ci lañ doon jeexale nii ñu ngi jégalu soxna yi di jégalu sëriñ di ñaar di jégalu fuqaha yeeg ñi jàngoon yeeg mu haddisoon yeeg ñu mel ni ñoom ñoom docteur Samb fële ca kuliyatu Afriqiya ak suñu fa yëkkati jotaay bi ndax suñu mbokk yi ngi ni taxaw seen i bëgg la na firin fànjara xibaar yi toi firin yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bi ak suñu àndandoo bi C3S yal na yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara in uridu illa al-islaaha ma tataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu